billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di jaar baax di am mbégte di ànd ak yéen fii ci bis bu tedd bi nga xam ne bisu fàttaliku la waaye bisu ñaanal la eh, Serigne Aliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën ko miin Serigne Aliou fi nag ci kër Serigne Falilou Fall moom sëñ Aliou Fall Mbawar feggoo fi ak Serigne Amsatul Khadim mu Cheikh Abdoul Ahad ku ne xam diggante ak Serigne Falilou Fall waaye ku ne xam diggante Serigne Aliou Fall ak Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamante ne bii mooy waajuram ñu feggoo ci jotaay bi euh, ak Serigne Falilou Fall mi nga xam ne moo woote bis bu tedd bi sëriñ Bassirou Gueye sëriñ Modou Gueye nekk nañ ak bokk ñu bokkal teg fii yëpp eh, bëgg a taatal rek ay kàddu eh, ci diggante bu rafet bi nga xam ne amoon na ci diggante Cheikh Ibrahima ak sëñ Aliou Fall ba sëñ Abdoul Ahad noonu mu ko defee ci kër yi Baye Fall yëpp ngir wut ngërëmul sëñ Touba lenn ci ay leeram nekkoon fii ci kër eh, sëriñ Aliou Fall sëñ bi nag ñëw ngir dundal loolu waaye ngir dundal itam diggante bi nga xamante moo am ci diggante moom sëriñ Fall Thank you. yoonu Cheikh Ibrahima yoonu Baye Fall Baye Fall amuñu yoon dañoo wane aw yoon dañoo bokk ci murid yoon aw yoon yoon yi jërëjëf sëñ Tuubaa lañ ko waaye yoonu ñu yoon dañoo wane li nga xam ne ku bëgg a jëlam sëñ fa ngay jaar kon Cheikh bu borom Basiir la gis gis-gis am dégg-dégg gis-gis bi mooy njëriñ lim xëcc andi ñu ci sëñ bi bëri na te xamuñu ko bu bëri dégg-dégg bi tam mooy li gën gën a kaw yëpp ndax inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar waaye wala dikrullaahi akbar moom fab si kat nag la la naxaare su am kaay nga dëkk fii fenn yàgg-yàgg dama koy dégg a soppi nii def def dana soo di toppandoo tubaab bi jàng tubaab tax nga nga am complexe li sëñ sëñ daan na xam-xam bu lay fàttaloo sa bopp am ful du ko jàng dafa am nit ñoo xam dañoo complexe biñ jàngee ak naar dañu dañoo ñëw di roy naar ci loolu ak wax te naar axaraam al axaraam aslu ko ne fa ñoo gën a jubal ñoo gën a naar tubaab waxi noppi kon nag bu seex bi ñëwee indi loo xam ne ñëfi Afrique la ñëfi der bu ñuul la te jaar ci ma ma jàll man man fa ne xam ne loolu dëgg la dëgg la loolu nag jii ko ci ndaw fàttali leen ko dañoo toll ci jamono ndax na dama ko waxee ñi def ñi def ñi def suñu tubaab yi ñu ngi yàqale ñi jàngoon bitim réew da xam ne jàng arab moom mooy laaj doon tubaab bi yàq diine ci ñoom dañ koy yàq ku ne gis na ko léegi xeetu waxaa bi yeeg salafis yeeg ak ñu ak ñu ñëw di la gëm loolu loo xam ne taxaw ndax li nga ñam ba sàqi ma ko wan na ko xam nga lam saf doo ko war a war a war a yemale loolu ndax la nga dégg la ci bëri kan la kon nag bu amee bésu seex bu fi jàmbaar yoo xam ne kon xam na ko mu ngeen ñu màcc te loolu pas-pas la. waaw sëgg réel na te mu sëggee ko waat kon xam na ne borom ngërëm bi moom. ngërëm nag si ñëpp daal ñaar ñëpp gërëm na ko fóot na ko jàpp wala ngay làq dem jënd daal koo ko soog a daal ko xam borom ngërëm. Seex nag ba fi jógee ba léegi mu soog a daal ak jàpp ko mu soog a daal